Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo di may seen revue de presse jàngeen jëf coowal suuf bi moom ba tey pënd gi wareegul réew mi quotidien fësal tey ci xëtam bu njëkk ni état moom fas yéenewul dellu ginnaaw ci li nga xamante ne moom la tere yenn ci ay opération foncière ci gox yu bëri ci réew mi dogal boobe ñu jëloon ba àpp li di waaj a jeex jàppale ni kon nguur gi tegaat na ci ñeent fukki fan ak juróom bu weesoo loolu sax yéene kaay groupe Rewmi Network bi dañu xamal ni ANSD noté na secteur reconstruction bi muy dëggal ni kon ci jafe-jafe la ñu nekk jamono ji ndax wàññite bu toll ci 5 virgule pour cent ci chiffre d'affaires yi nga xamante ne kon moo soxal ñaareelu trimestre atum 2024 24 heures di dëggal ni yooyu les opération foncière nag mu soxal ay site yu bari ci biir réew mi dañuy wëy di ko dakkal yeneen ñeent fukki fan ak juróom ñeent fukki fan ak juróom yi nga xamante ne état tegaat na ko ci li nga xamante ne moom la ñu suspendre opération foncière yi le quotidien yéeni kaay ñi nekk ci secteur bi wala sax ñi nga xamante ne dooroon nañu seeni chantier chantier bi Ousmane Sonko door jamono ji ci wàllu politique Vox Populi moo yëgle ni du dara lu dul teg loxo titre foncier bi nga xamante ne moom la Macky Sall am yéenekaay bi duñu xamal ni moom jiital Pastef jaar na démb fu mel ni Fouta Matam Ndioum ak Podor daal di fay wane boppam Fouta basculé ci li nga xamante ne moom mooy loxal Pastef bu ñu sukkandeko ci yor yor bi suñu naataango yi di yëgle ni lu ko dale Ourossogui Agnam Oréfondé Ndioum Podor ñoom ñëpp ñëpp nee nañu waaw projet Sénégal 2050 bi ndax démb lu ñu wane ni mobilisation ngir dalal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko Sonko fës ci xët bu njëkk Sud Quotidien moom jiital gouvernement bi mel ni kuy dànkaafu ñenn ñi bokkoon ci nguur gi wees ndax artu na ci lu jëm ci hôpitalu Ourossogui bi nga xamante ne dañ ci nemmeeku ay surfacturation ci tabax bi ba ci sax université Souleymane Niang moom premier ministre ŋàññi na ko di xam ne ni ñëpp ñi nga xamante ne laale nañ ci yoon dina dal seen kaw Sonko fas yéene dal ci kaw Farba Ngom noone la ko l'info yéenekaay xamle ndax démb ca campagne ga mu doon amal ca Agnam moom jiital Pastef ŋàññi na doxalinu ki nga xamante ne moo nekkoon jege ñaale Macky Sall ay millions yi muy wër di pasar pasare ci campagne bi coowal suuf yi nga xamante ne tamit dañu koy tudd te lépp mu mel ni ku ci amoon jàppandalu njiitu réew ma woon lii yëpp moo tax Ousmane Sonko dig askanu Agnam ni kon Farba Ngom bi mooy nekk élection bu mujj bu muy bokk moom Ousmane Sonko ak judduwaat seen diggante ak Macky Sall li ko waral mooy sorti bu mujj bi nga xamante ne borom APR ci boppam def na ko barki Dembo Ndiaye tontu li nga xamante ne ñi ngànk nguur gi tamit indi nañ ko mu mel ni kon ñaari camp yi ñu ngi koy defante seen biir defante gi yamul ci ñoom ñaar ndax Amadou Ba tamit Les Échos mu ngi ñuy xamal ni bàyyul benn yoon Sonko ak Jomaay ci tournée ba mu amal ni ki démb ca diwaanub Saloum moom tête de liste jàmm ak njëriñ ma ngay ŋàññ doxalinu nguur gi ndax li mu jàpp mooy juróom ñaari weer yi nga xamante ne def nañ ko ci bopp réew yoon kese la ñu indil askanub Sénégal Amadou Ba noppi Barthélémy Diaz yëkkati ca Vox Populi moom tête de liste sàmm sa kàddu muy sàkku ci askan wi ñu daal di sanctionné listu Pastef ci élection législative yi ndaxam ci législative yi fii ci Ndakaaru Abass Fall mën naa dojati kii di Barthélémy Diaz mooy laaj bi suñu naataango yu lii quotidien samp niki tey ji lu yamba am mooy meerum Ndakaaru bi daal am na soxla ñi am soxla dëgg mooy ñu laalee ci mbiram Prodac libération mi ci xëy xam ne ni kon am na ñu njëkk ñi nga xamante ne teg nañ leen loxo gannaaw bi nga xamante ne rapport bi IGF def jébbal nañ ko dikk kii di Mamina Dafe nga xamante ne moo nekkoon coordonnateur Prodac ci boppam daal nañ koy yóbbu gardaaw yi xaritom bi di Ibrahima Cissé nekkoon gérant société Tida moom tamit teg nañ ko loxo yéenekaay bi di xam ne ni kon enquêteurs yi fexe nañu ba teg bët système bi nga xamante ne teg woon dara ci yoon ñu ci doon def faux ak surfacturation ñoom ñépp kon yoon nang leen di yootu jamono ji jàpp ni kon moo nekk ci xolub mafia bi ci boppam Mamadou Moustapha Ba mi dëddu àdduna ca France niw bi nga xamante ne kon fas yéene nañ ko rob ci Sénégal mu mel ni jur na coow bu ñu sukkandikoo ci le témoin yéenekaay bi di xam ne ni gannaaw déplacement bu njëkk ni ki démb ci këru kii di am beneen déplacement tey ji tamit la ñu koy waajal ca jamono jooje ndaw yu nekk ca Nioro nee ñu mukk faaw moom Moustapha Ba ñu daal di koy rob fi nga xamante ne mooy fi mu dëkk Donald Trump ca fas yéene dellu dëkki ca Maison Blanche gannaaw élection présidentielle ñu fa doon amal l'observateur mi yëgle ni kon moom candidat républicain yi daal dinay jël ndam li waaye ndam li nga xamante ne moom Trump am na ko yéene kaay groupe Futur Média bi di ñu xamal ni kon tiitaange dëgg la indi ndax boo moyul étranger yi fa nekk te dugg ci anam yu dëppool ak yoon boo moyul ci buub leen delloo leen seeni dëkk la ñu jëm rawatina nag émigré yi nga xamante ne ñoo jaaree ci yoonu Nicaragua bi lii moo tax enquête gis ni Afrique ci boppam moo amee njàkkare maison blanche moo tax sax yéenekaay bi samp laaj ndaxam ordre bu bees la ngir déndub Afrique le soleil moom dikk ci xew-xew bi tey muy ubbiteeg fukk ak juróomeelu biennale de l'art africain contemporain yéenekaay an bi di xam ne ni kon Dakar mujj na am gannaaw ndaje bi nga xamante ne weerub mel lañu ko jàppoon mujj gi ñu daal di koy toxal tey jii nag njiitu réew ba Bassirou Diomaye Faye moo ko wala a teewee lu jege nag ñaari milliards la ñu génnee ni budget ngir amal bile ndaje ci bi mujj